Euh, remercier et féliciter nos délégués régionaux et tous départementaux et tous nos délégués communaux de bien sûr sur nos mandataires suis Mon Je suis vais sérieux suis de Je apprendre apprendre président Macky Sall li ni ma ko jiite woon 2019 jiite waat ko 2022 kon li kan mu mako kan mu mënu ma cee turiyaan muy dal mu ko nekk lolé ñom waro nañ ko xam mo wax leen mbokk yi gërëm aussi suñu parrain yépp ndax parrainage ñu fi am ay la ñu amuñu daalé ko doublon interne curage au son nag yàlla ko yor.

bi dafa yomb nga yóbbu sa clé rek ne la am na 10 000 parents yoo xam ne gisuñu la lu ñu la ne kan la lu ñu la ne fu ñu dëkk ay ca nga def kooku di benn bu féete ko donc liggéey bu ci yëpp leen def amul kenn koo xam ne kii nee nañ la sa tur dañu ko bindee du noonu wala wax nga dëgg du noonu déedéet ndax buñ ca bàyyi woon seen diini li ñuy wax nga xam ne dañ jàll nañ ko bi xam ne on paraît trouver ndax président Macky Sall li muy wut mooy fayu troisième mandat mu am waaye bu loolu du jàll c'est à dire troisième mandat moom y en aura pas du ci moom du ci Amadou Ba waxoon naa leen ko fii day bàyyi troisième mandat bi Amadou Ba moom day day de te mooy troisième mandat bu mais benn ñaar te nag moo ko ne man mënuma dindi ci processus électoral danaa ko indil vingt mille la mën naa ko indil cent mille pare ñu ngi nii fii ëpp na lii sax kaay nag ma ñëw ci Aly Kalé suñu mandataire ci Ibara Fall ba mu njëkkee dem dafa ñëw déposer un récépissé de dépôt déclaration de candidature boo nekkee candidat moom ngay yóbbu da ngay dem dafañ tuddee greffe mooy bureau ba ñuy enregistré seen mbir bien sûr moom bu baax bu mu yóbboo ne ko déposé nga comme sorti carte d'identité attestation d'investiture

Continua, vamos em 14. 14 é já. é só. Bu ci nekk ñu wax que la nga def ele ni ñaa ngeen ëlbati que mooy tampon bi tampon moom kenn du la leer n'est-ce pas ci tampon moom leer conseil constitutionnel maître Ousmane Ba le requérant mooy temps mandataire bi lay doon limal naa leen ne saint ba ñëwee ci suba leen saar wi daw waaw ñaata conseil constitutionnel la ñu wax fii ci réew mi benn sa greffe ne enregistré ñu ñëw toog nii nii moom mii moo toogoon informaticien bi mandataire national baa ngi ñu ne ko gisuñu saar bi donc ñu éliminer de notre parrainage toute la région de Saint-Louis waa Saint-Louis ngeen déggee ko noonu yéen ñi ñu dugg seen kër yi ngeen d'accord pare nañu waxuma ville de Saint-Louis rek am na ku ko def région de Saint-Louis ñu dindi waaw yow nooy dugalee clé wu jàpp bi mu la jox nga ne Saint-Louis ngi ci mu ñëw pour vérifier nga ne ko Saint-Louis newu ci ñun jaajëf bu leer nañ lii mooy loxo yàlla day dugal seet loxoom ci yëf ju mel nii ñun jaajëf yi ndax mënoon nañu wuti beneen pexe bu dul lii BPK bi dafa ne mu ngi nii conseil constitutionnel boo ko signé ancien garde des sceaux la ancien ministre de la justice li may wax dama koy teg ci ay kayit ak ci ay bërëb yéen mu ngi nii yéen a ko signé Saint-Louis ngi nii ñu ñëw toog ñu leen gisuñu Saint-Louis ah seen clé la ah seen clé la mais clé bi yéen lañ ko jox ba ñu ko joxee ba ñu leen ko joxee Grèce moo ne nii signé ko kon yàlla moo àndul ci li ngeen di def yàlla moo ci àndul lii yàllaa ko fay na lii ba ñu koy déposé leer na nañu dañu ubbi clé bi amul dañuy xool carton yi ubbi clé bi ñu affiché ko kon de lépp ànd lépp lépp mat lépp lépp mat nañu delloo suñu ay parents ou saa yu ci nee noonu su ko defee ñu ne leen porté plainte contre qui au vrai dañu ne dañu joxante leen te jàpp naa ne avant assermenté bi war naa wax ci lii parce que moom dafa waat mooy assermenté. booy juuj laaj nag ñoo ko nañ xam ne ñun ñoo leen di bokk kàddu noo xam lool ndax mooy lii mooy pexe bu sottiwul ak pexe bu matul kon lii mooy discrédité lii ñuy def nii rawatina nag maa la dox ci lan lañ ci jublool ñu dindi dix mille ne la wax nu ñu tudd duñu la wax fu ñu dëkk ñu jox leen ñu dix mille yi léegi ñu génneel leen

déposer ay élus amuñu courage def lii não def non pas eu ce courage yow o yor état yor eh, budget national yor say policier yor justice ñeme woon dem seeti askan bi askan bi nag nga déglu li ñu koy wax bu baax a baax a baax a baax a baax sàcc tam yomb na lool sax waaye fa nga koy tegee du ngeen am fu ngeen ko tegee loolu moo wax la du ngeen am fu ngeen ko tegee xaaj tamit di def nag moom ku ne mën nga fa may daaneel nag mooy du 20 000 pare ngeen doon danañ leen indi 100 000 pare ñu ngi nii 100 000 ñu ne leen ko indi donc tout ça dépasse sérieux lii yàllaa ci def loxoom yàllaa ci def loxoom pour war askan bi de lii dara sérieux wu ci nit mënta indi clair nga vérifier ko compter régions yi mu ñëwaat toog nga ne ko ah gis moom. te yow agent assermenté signé ko jox la ko yéen xam ngeen ne waaw nit booy da ngay am expertise sax booy def même même ak caay-caay boo koy boo koy def da nga ciy am expertise da nga ciy aay ñu jéem a aay ndax bu ñu demee ñu soow leen ah. bu ñu demee dinañ leen soow ndax benn sax boo leen seetlu leen woon lii ndax mënoon nañu uti yeneen i pexe kon loolu na ko sénégalais yi xam la xew de conseil constitutionnel preuve a ngi nii

mais malgré ça loxo yàlla moo laa laa ci dugal loxo ñoom war nañoo may ndax man ñoo leen def moom kon sénégalais yi ñu xam loolu ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal di liggéey la communauté internationale ñu xam li xew ça c'est la preuve man ancien ministre de la justice la gardez suuf lu ma wax ci ay wax jaaxaan kenn xamee woon kon waroon nañ jéem lépp ba mu des une discordance maanaam sa greffier la mu signé ak ba ñu ñëwaatee ndax kenn du ko xam ne du ñoom suñu gën a ñoom ko jox ñu defal ñu reçu ñu ñëwaat ñu ne ñu gisuñu seen yu dix mille parrain kenn gisu leen ci fichier bi fichier bi am na bu ngeen nee dix mille nga da ngeen di def seen tur ma Samba ma Demba ma et cetera ñu indil leen preuve ci saa si ne ñu ngi nit nag carte d'identité la mën a yor ak carte mën naa am leneen bu ngeen ñu waxee bu wote ji leneen lan nga soxla ñu watee ñoom aussi parce que lii bu continuer mooy ba su élection bu jotee da ngay yor sa carte te doo mën a wax kooku il faut ñu xam ko bu baax a baax a baax ñu ne la nii mi la nga ne ñu toog tegatal xam ah gisuñu leen ñoom ñoo yor seen fichier du ñu la tegal ci écran bi nga gis kan la déedéet kon may woo képp koo xam ne kii jàng bi situation bi démocratie xam xam li nga xam ne moo xam ñun nag ñun ñun ñun xeex du ñu ci du ñu ci du ñu du ñu ci du ñu amul découragé ñun xeex moom dañ lay dem ba sës ak suñu mbokk jaago yi léegi vingt mille pare moo ci manqué dinañ leen indi cent mille yu amul benn weral na Macky Sall xam ne mënu maa génn ci ay troisième mandat bu dee moom la dese ndax ñi nga xam ne dañu taxawoon ci troisième mandat ba xañ ma ko dama leen liggéey ne munu ko munu ko ndax lii sénégalais yee ma ko jox sénégalais yee ma def confiance ne sàccuma fenuma dix ans kenn du si ma jàpp ci dara bien que audité na ma bay bëgg de dara sénégalais yi bare na moom mënu maa génne ci ay élection conseil constitutionnel bi mënu maa génne ci ay élection ndax naa dinañ indi parrainage yu yu leer naa kon loolu moo doon kàddu yi ma félicité waat vraiment suma militants yi kañ leen ne leen da ngeen war a fier de vous-même fier de vous-même qualité parrainage yi ngeen andi amul amul benn werante amul werante dubloo nag mooy tirage au sort moom laa ba demee ba démocratie ñu koy tirage au sort nga xam ne booba démocratie war nañ ko taxaw taw dégg bu ñu nekkoon premier voilà kon yéen gàcce gaalaama yéen waa bi bi 2024